413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. acca wax naa la ko ñu ngi euh, ku ne xam ne tey la journée mondiale des handicapés comme ni ñu koy faral di euh, defee chaque année di ko féetee euh, tey nag ñu dox ba daje ki nga xam ne moom moo di Ngagne Demba Niang moom itam mu nekk handicapé yore li nga xam moom moo di motoom Ngagne Demba duñ def lu dul bàyyi la nga di nuyoo ñu dugg yow ci waxtaan bi avant ñu ñëw ci li ngay jaay. waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di di leen sant. di nuyu sama mbokki handicapé yi di leen ziar waaw journée mondiale des handicapés la boo man maa ngi nii ci terrain bi di liggéey di daan sama doole xam nga bon amuñu benn euh, kii euh, euh, maanaam Sénégal maanaam joxuñu cër handicapé yi daal waaw jox joxuñu cër handicapé yi loolu ci état bi la jógee dépuis ci Senghor ba léegi ñun waroon nañu am loi d'orientation ah loi d'orientation boobu da dañ dañ ci waroon di gis suñu bopp ñun handicapé yi waaw handicapé bu nekk su fekkoon euh, état bi daf la dugal fenn ngay liggéey kon day baax. waaw ku nekk bu dee ñaari handicapé chaque ñaari handicapé ñu jël la dugal la ci benn usine. kon bu yàggee kenn dootul tàllal loxo. tal ah nga doon handicapé ñu gis la yaa ngi liggéey di jaay di jaay ay warga ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey lan ngay wax sa moroom yi yeneen sa morom yeneen moromu handicapé yi nga xam ne ñu ngi tollal loxo. yeneen moromu di taxaw ci mbedd mi ñoom amuñu pexe xam nga bu feccum liir neexee ndey ji moo jàpp ci mbagg yi. ndax su fekkoon handicapé yooyu euh, état bi pousse na leen jàppale leen kon du ñu taxaw tey ci mbedd mi di laaj xam nga ndax laaj kenn mënu ko laaj a gën a metti ci luy metti waaw laaj ku ko def rek amatoo pexe waaw mais kon état bi moo ñu war a jàppale dugal jël ñu ñuy liggéey utal ñu benn euh, comme kii social bi muy wax nii euh, maison sociale yi war nañu ci jox ah jox nu benn hangar tabaxal ñu ko ba pare jox ñu ñuy liggéey ñun ñëpp a bëgg a liggéey handicapé yi koo ci jox liggéey mu liggéey mais boo amul pexe nooy def da dem di tàllal loxo. ñu gis tey journée mondiale des handicapés eh, gis nañ ne euh, journée mondiale de la musique dañ koy féetee journée mondiale des femmes dañ koy féetee yeneen journée mondiale gis nañ ne euh, journée mondiale des handicapés euh, fii ci Sénégal joxuñu ko cër à tout moment tey loolu naka ko jàngatee. waaw loolu nag dafa war a deñ parce que loolu maa ngi lancer appel état bi pour ñu jéem ñu reconnaître comme ñëpp. parce que ñëpp euh, handicapé yi ngay gis nii ñu am jom lañu ñooy yor seen kër di daw te xool état handicapé dafa metti yow état nga nekk si euh, kër waxuma la dara nga luyee ah amoo salle de bain rek kooku beneen difficulté la hmm? handicapé déplacement am lépp dafa metti léegi nag xoolal loolu état bi ah jàpp jàppale wuñu ci dara waaw man maa ngi nii am naa projet boo xam ne deux cent cinquante personnes handicapées mën nañ ci liggéey waaw te projet parking la vélo scooter engin bi ma ko defee demande bi madame Aïssatou Cissé répondre na ba ne kii président nangu na mais bi bi réponse bi ñëwee joxuma sama réponse madame Aïssatou Cissé suñu responsable la te kooku vingt cinq millions la du dara vingt cinq millions ci état handicapé yi di liggéey kooku du dara ah te ma euh, loolu maa ngi ko jëlee woon ci fi ma doon liggéeyee man dama doon liggéey SACES laa nekkoon waaw liggéey naa treize ans de service fay ñu ma sama benn droit dàq ñu sans droit. boobu handicapé nga. boobu handicapé la maa ngi dox. handicapé la mais dama doon dox quoi sans beeke yi nii. waaw di liggéey nii ci parking nii dama daan dem ay cent mètres deux cent mètres. waaw di jaabante biir ville. léegi Khalifa Sall arrêté ko. fay ñu ñu benn droit. benn droit joxuñu ñu ko dégg nga léegi treize ans de service xoolal dans l'air xoolal loolu am na ay handicapés yu cu nekkoon amoon na plus de dix handicapés yoo xam ne ñu ngi woon ci biir service bi xam nga te kooku Malick Sow a ko defoon Malick Sow moomu su ko ñëpp toppa toppandoo woon kon handicapé dootul laaj au moins moom jël na ci dix handicapé ñuy liggéey ci société bi ah léegi xoolal ku nekk directeur bu nekk jël ñaari handicapé ci sa société ah quel que soit alpha am na loo war a def xanaa nga nga nga kii nga ñàkk xel mais boo amee xel di dund xel nga mu wóor leen andi handicapé amul pour mën a ah, handicapé amul xam nga xam nga lan mooy handicapé nga manqué xel mais feeg yaa ngi sa xel am nga loo war a xalaat liggéey ci. yow yaa ngi xalaat jël ah, say. maa xalaat di liggéey lan ak lan waaw ay warga laay jaay. ay flèche mais du metti ak sa déplacement nga war a jënd essence war a taal scooter bi dem jaay. léppay metti dafay metti tellement mais xoolal ma am dërëm moo ma gënal ma tàllal loxo parce que gis nga gor ah gor munul laaj gis nga tey ma am ñaari dërëm am bénéfice ma yóbbu ko sama kër lekk sombi sax moo ma gënal ma dem laaj nit ma lekk ci ginaar waaw kooku moom duma ci am honneur sax aw ma ci honneur man ma daan sama doole am sama cent franc moo ma gënal man may dem di laaj nit actuellement yow ban liggéey nga mën a liggéey à part à part à wala jaay rek nga mën a. non non mën naa liggéey lu bari mën naa def surveillant ah mën naa def garde parking ah mën naa def entretien même entretien bu ñu ma ko joxee ma def ko. entretien ci kër ci bureau yëpp ma def ko man. waaw nettoyage affaire entretien bureau man dama koy def man xoolal bañu ma dara dama doon nettoyer ay ay hélice hélice su bato dama ko doon liggéey. boobu yàggul dara ba pare dama doon ay lal sax dañ ma ko doon commandé lalu bronze yi di ma koy nettoyé lal entier ma euh, ma rey ko benn journée waaw man liggéey laa xam man bu may liggéey damay kontaan waaw bu may liggéey moo ma gën a laaj nit nit jox ma cent mille ah ma liggéey am ci mille francs moo ma ko gënal. macha allah tey actuellement ban message ngay jàllale ñi nga xam te ñoom ñoo leen war a jàppale. waaw man li may lancé mooy. Macky Sall nañu geesu Macky Sall nañu geesu depuis 2012 vraiment ñoo ngi koy xaar ci lu bari xam d'orientation bi waroon na ko appliquer appliquer wu ko même suñu suñu kii bi ñuy def suñu carte égalité des chances bi bourse familiale bi li ñu am trois mois yi ah trois mois ah vingt cinq mille est-ce que loolu respect la quoi ngir yàlla. ah trois mois vingt cinq mille ñu la koy jox ba léegi joxuñu ñu ko douze mois ngi nii joxuñu ñu ko douze mois bi ñu ko gëjee jox ak léegi douze mois la waaw te léegi handicapé yi am nañ soxla de ah am nañ lu ñu war a def xam nga dañu war a jàppale xam nga mën naa ne sax du jàppale ay droit la xam nga dañuy wax jàppale mais xoolal Sénégal ay droit la ñu am yoo xam ne dañu ko war a jox ba mu mat sëkk xam nga dégg nga ñun liggéey comme ñëpp xam nga di di daan suñu doole comme ñëpp di yóbbu suñu kër di yóbbu suñu famille comme ñëpp yóbbu suñuy doom man maa ngi nii samay doom a ngi fii ah samay soxna ah damay daan sama doole lu ma am yóbbu xam nga. kon macha allah ñu bëggoon xam la mooy sa dernier kàddu. waaw sama dernier kàddu maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw.